nit bu gëm yàlla bu buñ ko yaree ci gëm yàlla gu dëgër dana xam yàlla mooy kan ba lu mu digle mu xam def rek la war la moo ci war lu mu teree mu bàyyi rek moo ci war ndax lan li yàlla lay digle du yàlla lay jariñ yow jaam bi yaa koy jariñoo soo ko xëttee yow yaay perte li muy tere it yaa ciy loru moo tax gis nga sëñ tubaar radiyallaahu ci mën a ñaanam a falaa tuaaxisuhum bimaa laa yanqusu bàkkaar mooy yàlla du la wàññi dara yàlla kon bu leen ko jàppee ñoom ñoo ciy loru waaye lahum wahabi alladi la yanfau yàlla na nga leen may li nga xam ne moom amulul benn njëriñ mooy topp yàlla ñoom ñoo ci jëriñu yàlla na defal ñu mën a topp yàlla waaye yàlla na nga leen ci bàkkaar am solo la wala tuaxidhum bi ma laa yanqusuk wa lahum wahabi alladi la yanfau kon ñu bàyyi xel ne kon nit ki suy mooy moom boppam lay tooñ boppam lay lor ndax ndigal li yaa ci jariñu lor ji euh, tere gi yaa ci naroon loru kon loolu it baax na euh, bu gëm yàlla dëgg dañu mën a mucc yu bari Euh, bokk na ca sàggane yar jabar yu bari yaruñ leen ndax doomu adama euh, li yàlla wax ci alquran dañ ko war bàyyi xel yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha nas wal hijaara nit ku ne am nga responsabilité sa njaboot nga yar leen teg leen ci yoon jàngal leen diini xamal leen lu baax xamal leen bon bàyyi leen nag soo ko defee sa jaan wàcc nag boo ko deful nag am nga masuli yàgg sa sa boo liggéey moo tax jataay yi ak daara yi sëriñ bii di taxawal di ci sonn waxtu ne bëgg nit ñi tegu ci yoon rek a tax xam nañ ne nit ñi aw yoon nit du jubal boppam bëgg nit ñi jub moo tax yàlla yebal ay yonant jox leen ay téere yebal leen ci nit ñi kilifa yi nag ñoo fa wutu ñooña kon seen ndigal dañ ko war topp li ñuy woo dañ caa war jëm ñoom nag li ñuy woo mooy ne jàng nañ yar nañ yar njaboot gi loolu bu ñu ko defee mun nañu mu ci bàkkar waaye ku xamul dara nekk ab tën saa bu xiifee mbaa mu wéradi mbaa mu sonn rek mooy yàlla yëpp ci mu yàlla fii nit ku wéradee te amul gëm yàlla faaw mooy yàlla ndax dana fajoo lañ koy tane dana dem ci jabar dana def lu mu def dana naan lu mu naan ngi bëgg a wér saa bu saa bu xiifeeti lekkut dana jëlee fi jàmbur ndax ñàkk gëm yàlla gi moo tax loolu yar nit ki ci gëm yàlla am solo loolu mbokk yi bokk na cooy it nag ñàkk sàmm say bët ndax bët bu xoolee lu mu war xool mën naa tax mu def yaram def lu mu war def te dañu digal xaddul basar bu fekkoon te sàmmonte nañu yooyu yooyu bokk na ci mën nañoo mucc ci bàkkaar ci ci ci moy yi bi ci des it umpule lu ñu fi indi woon adduna jaam bi ñëw fi pour dëkk fi ba tax nga gis koo xam ne la muy dajale ak la muy dox day mel ne ku koo xam ne jàpp na day faatu waaye ki xam ne foo foo jaar di jàll ay tool la yoo xam ne sa kër a nga jëkk dëkk dëkk bi di la xar fii doo fi def yenn yi bi ci des it umpul yàlla ci la bokk umpul yàlla bokk na ci jaxe-jaxe seytaane seytaane bari lu bari nit ñoo xam ne lañ def moo leen ci dugal bokk na ci woru woru ci njëgalu yàlla na ñoo xam ne yàlla la bari na njëgal yërmaane nit ci la nett histoire ñu defoon lu rëy yàlla leen ñooñu ñu ma maanaam mo ñoña kon yalla dañu bal kon no bëgg def man nako ko def lool waru la ak naagu yermane yalla yi baaxul no mëna mel lo mëna a toll ci bakkar jéglu bo jéglu yalla jégal la bo tubu yalla bal borom bi nee bu le naagu mu ko yermane yalla lélé nit nak yag daf ñawte ba tax mo ne man da xamna dootu mu bax ya billah dal di continuer ci banam di mo yalla lool bokku na ci koy sabab bokku na ci it laytoo dogalub yalla am ñu wax dañu wax na yalla daal mom aw mooma su mooy yàlla bu neexoon yàlla doo mooy loolu du lay mbokk yi ku jàng taw tawhid xam ne loolu du lay bi ci des rafet njort ak yéene ju rafet doyut maanaam man daal lii ma def lu baax laa ci jublu déedéet diine xamut loolu diine li mu xam mooy ndax sant nañ la santuñ la ko léeg-léeg mbokk yi gis koo xam ne ma ngay def lu jàpp ne lu baax la misaal naa joxe misaal léeg-léeg ay ay mbokki soxna yi nga xam ne dañuy raj raj loo ci armeel di siyaare ji santuñ leen siyaare armeel donte yéene ju rafet lañ ci am du ndigal léeg ñu dajaloo di jàng alxuraan ko wala ñu yëkkati xasida nur na lu baax waaye baaxul ndax du ndigal ci ñoom ab jaam lépp luñ ko sëntu rek baaxul ci moom loolu it daa mat bàyyi xel bëgg jàpp ne yéen a ji yéen a ji rek doy na yéen a ji ak tënkoog tënku ci charia ngir ngir nga jariñu da ngay tënku ci charia waaye doy rek yi man lu baax laa yéene kon li may def baax na ndax lu baax ci yéene déedéet na fekk nga teg ko ci yoon nit ñi ngir nga jariñu da topp ndigal te ndigal la nga teg ko ci sunna si yonent bi alayhi salaatu salaam yéene jël rafet nag yàlla rek tax nga di ko def te na la ñu bari ñu yëngutu ci ay mbir di ca sonn di dajale ay mbooloo wala baax yu ne ñu ngi koy def mel na ne ci kaw waaye du ca du ci jariñu ndax xëtt ndigal la jàmm bi nag bu xëttee ndigal du jariñu bi ci des it am na ñoo xam ne tuulul amal li ñuy wax maanaam jàpp ne daal faatoogo lu ne nga ne ci kanam des na euh, bu jàpp ne bu boo màggee bàyyi nangam soo màggee bàyyi nangam te xamoo ko ngay màgg loolu it bokk na ci sabab yooyu mbokk yi bëgg aduna ci la bok amna ño ñoo xam ne ñi mooy yàlla bëgg bëgg aduna képp lañ ko tek euh bëgguñ lu ñu ciof ci seen ak wala ci seen daraja ba tax bu la yoon waxtu julli jot ñu ne fi ku fi julli ñu rétal lu nangam da ngay bàyyi julli ñen ñi dañ barab fekk lu ñuy téré ñu ne bu ko defut ñu japp ma nangam motax ma daf ko dédé xana bàyyi wo xel yalla mi la tim tim ñooñu te bu ko neexon seen noo ak lool loolu it ñu ko bàyyi xel baax baax ak reuy bokku na ci li tassaré euh ñaawteef li tax moy moy di am iblis la anatullahi alayhi ak reey moko dal ba moy gu gi moy yalla alak alak kep ko top ak jaxasoog ay kat nak anono yu bon da tax do di moy léeg-léeg nit ko xamne fu bax lañ ko yare waye mu genn dem fenen fek fa ñeneen ñoñu soppi ko bu mu xey yes ñep loy lu mat bayi xel la na kilifa yi nga xamne Serigne Touba daal bokku na ci liku gënon na ñor bi asaliha moy Touba gi ak fi melna mom motax fofu it ku fi dekk war nga xel jublu gi mu sos ko lépp luy safaanu loolu boo ko fi indee tooñ tooñ nga borom lor nga sa bopp képp ku ci loru it da nga am ci àq ja ci bàkkaar ba loolu it mën na bàyyi xel yu jël si nag aada it nguur la am na fi yoo xam ne sultaanul aada bokk na ci sabab mooy yàlla am na ñoo xam ne la ñuy mooy lépp aada la li yàlla suñu baaxee maama bu sa bu dee sa baaxu maama te baaxut da nga ko bàyyi Sëriñ Tuubaa daf ñu doon yar ci yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada waaye lii suñu aada rek aada ju baaxut baaxut aada du diine mbokk yi lu ci baax dëppug diine nag dañ koy jàpp ne ne diine la léegi waaye jàppuñ sax ko ngi ne aada la ci Sëriñ Tuubaa bokk na ci lim gën a joyante bi mu dikkee bàyyi nit ñi ak aada yi fexe ba lépp di tënku ci diine